Sénégal. senegal maanaam diine yëf benn diine bi muy lislaam maanaam diine ji fi ne di lislaam dafa am kuréel yu bari. dafa am kuréel yu bari. man nag murit laa. man nag murit laa. du ma ñu leen mukk leneen la du ma leneen mukk nag leneen la ndax li ma am. ndax li ma am. loolu moo ma ko may. loolu moo ma ko may. Sëriñ Tuubaa loolu. bu weesoo loolu. damaa gëm muridisme. dama gëm muridisme dama ko gëm dama ko gëm mas naa ñëw siyaare ci Serigne Fallou nee na mas naa ñëw siyaare ci Serigne Fallou maa ngi ànd ak suma benn xarit di professeuru américain mi ngi ànd ak benn xaritam bu doon professeuru américain ma présenté ko Serigne bi ma présenté ko Serigne Fallou sëriñ bi ni ko ni ma waaw kii mooy kan ma ne ko kii de américain la day jàngale ci Amérique. Serigne Fallou ne waaw kii mooy kan ma ne ko ah kii de professeur américain la day jàngale ci Amérique. day jàngale économie. day jàngale économie. comme man. comme man. loolu moo tax mu xaritoo. loolu moo moo waral nu xaritoo. ba pare moom mu nekk nag spécialiste Afrique. ba pare nag moom mu nekk professeur boobu américain boobu spécialiste Afrique. Serigne Fallou ne ma ni ko ñoom murit lañu. sëriñ Fallu ne ko ñoom ñooñu ay murit lan wax ko ne ko ay murit lañu. ñoom ñooñu ay murit lan américain yi. man ne ko ah sëñ bi nee na yéen ay murit ngeen. nee na ma ne ko ah man de li ma jaaxal yow sëñ bi daal nee na yéen ay murit ngéen yéen américain yi. mu ne ma waaw man américain la lu tax ma nekk murit. mu ne ko ah, man américain la lan moo waral ma nekk murit. ma wax ko sëriñ bi. nee na ma wax sëriñ Fallu loolu. sëriñ ne ma ñoom liggéeykat lañu. Serigne Fallou ne ma ñoom ay liggéeykat la te kuy liggéeykat rek. te kuy liggéeykat rek yaa ngi ci yoonu Mouride. yaa ngi ci yoonu Mouride <laughs> Serigne Fallou ko wax loolu. waaw te dafa xaw a mel na ko. te dafa ni que. addina yëpp li ciy dox. àddina yëpp li ciy dox. waxuma senegal rek. waxuma Sénégal rek. addina yëpp laay wax. addina yëpp lay wax. dama bind ci benn téere dama bind ci benn téere ma ne Afrique ma Afrique bu ñu toppoon yoonu sëriñ Touba bi bu ñu toppoon yëriñ yoonu sëriñ Touba nëga ni dana fekk ñu sori lool ba dab tubaab yi dana fekk ñu sori lool ba dab tubaab yi ndax li ñu sëriñ Touba jàngal ndax li ñu sëriñ Touba jàngal wéer ko ci sunu borom wax wéer ko ci li yàlla sunu borom wax ñaan leen ma ma may leen. ñaan leen ma may leen. sëñ Touba jàngal nu. sëñ Touba jàngal nu. liggéey liggéey. liggéey ci topp yàlla la bokk. liggéey ci topp yàlla la bokk. ñu nekk ci loolu. ñu nekk ci loolu. loolu nag dama bind ni ku ko am ci réew. loolu nag dama bind ni képp ku ko am ci réew. réew moo xam ne da am nit yoo xam ne dañuy liggéey. réew moo xam ni danga am nit ñoo xam ne dañuy liggéey. te mën nañoo liggéey te duñu fayul dara. te mën nañoo liggéey te duñu fayul dara liggéeyal réew mi rek. liggéeyal réew mi rek. réew mu am loolu. réew mu am loolu. am nga lu ne. am nga lu ne. ma ne ci téere boobu dafa xaw a mel na. nee na téere boobu dafa xaw a mel ni. alal joo xam ne dañu gas suuf dugal ko ci. alal joo xam ni dañoo gas suuf dugal ko ci suul ko ci. te xamuñu ko woon. te xamuñu ko woon. Cheikh Ahmad Bamba nag moomu woon ni. Bamba nag moom woon ni. bu ngeen toppee di liggéey. bu ngeen toppee di liggéey. alal jooju la di ngeen ko jot. alal jooju dangeen ci jot. mu jëriñ leen mu jëriñ leen. lu jiitu pétrole bi ci la bokk pétrole bi ci la bokk. nee na lu jiitu pétrole bi sax ci la bokk. pétrole. pétrole. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul it li tax yàlla def ko ci bërëb. kenn xamul it li tax yàlla sunu borom def ko ci bërëb. am nañu nag ay machine appareil yoo xam ne ak avion. am nañu nag ay machine ak i appareil yoo xam ne ak i avion. bu ñu ko seetee. bu ñu ko seetee. satellite yi. ci satellite yi. danañu mën a photographier suuf si. danañ mën a photographier suuf si. ba xam li fi ne lan la. ba xam li fi ne ci biir lan la. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. yàlla nag moom mooy seet ci kattanam. yàlla sunu borom nag moom mooy seet ci kattanam. fii ma def fi lii fii ma def fi lii fii ma def fii ma def fii ma def fi lii fii ma def fi lii. bind naa ci 1958 ci sama thèse. bind naa 1958 ci sama thèse. ni la doctrine économique du mouridisme. ni la doctrine économique du mouridisme. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. ma bu fekkoonte ne Afrique yëpp dañu topp mouridisme. mu ni bu fekkoonte ne africain yëpp dañoo topp mouridisme. dana lool. dana fekk Afrique sore lool. ndax ñun li ngeen nu jàngal. ndax ñun li ngeen nu jàngal. mooy liggéey rek. mooy liggéey rek. te àddina dara newu fi lu liggéey. te àddina dara newu fi lu dul liggéey. ak gëstu. ak gëstu. gëstu nag. gëstu nag. man ngaa trouvé dara man ngaa bañ a trouvé. man ngaa trouvé dara comme man ngaa bañ a. yàlla booy gëstu. booy gëstu yàlla moo xam lu mu lay won. yàlla moo xam la mu lay won. ci nameelam. Einstein nga xam ni. dañu dañu jàpp ni moo fi ëpp xel. waaw yëg-yëg yi nga xam dañoo jàpp ne ñoo fi ëpp xel. Einstein. Ah, Einstein Einstein waaw Einstein waaw borom xam-xam bu mag la du woon ab allemand. moo wax ni sama formule bi may wax ñëpp di ko yéem. moo wax ne sama formule bi nga xam ne moom laa def wax ñëpp di ko yéem. muy E égale MC2. mu E égale Énergie. Énergie. Égale masse. Égale masse. Que multiplier le carré de la vitesse. Multiplié par carré de la vitesse. mun a calculer wu ba agsi a <laughs> calculer wu ma ba agsi damaa jékki-jékki rek gis ko. damaa jékki-jékki rek suñu boroom sol ma ko. yàlla sol ma ko. ma daal di ko bind ci ma daal boobu. te formule boobu. moo tax. moo tax. américain yi. américains yi ak russe yi. russe yi ak chinois yi. chinois yi. ñuy mën a defar ay machines yoo xam ni. ñuy mën a defar machine yoo xam ni. di dem ba ca